أسير ما لواله نزير وثمودان وعاد أسير مسيري ما لخيار للعيد النبي ومالي لغير الله هذا مسير يسيري يكن الذي عادني إلى كريم عليه روم يسير فدار بهاني وهدي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكور ثوري وتعيدي ويسي لدى الهدى من الوهاب فهو النشير أميري لدى سيري ومكي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير عليكم ñi leen di waat baax waa Rafa TV di leen siyaare bu baax Bichri TV di leen siyaare bu baax euh, di jégalu ci kàddu yi nag bu baax a baax euh, dafa fekk ne moom mu ndigal rek waaye waruma woon yëkkati kàddu fii ci kanam samay kilifa euh, di siyaare njabootu Serigne Balla Fally Dieng gépp di ci jiital nag Serigne Saliou Dieng mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di siyaare Cheikh Moustapha sëñ Fallou ak sëñ Cheikh Abdou ak sëñ Cheikh Abdou euh, mais ñu ngi leen di siyaare bu baax di am bu baax nag ci bis bi nga xam ne suñu wayjur wi mi ngi koy def di ko taxawal di ci sant sëriñam ba sëñ Abdou Ndam Dieng di ci ñaane laale waay ñaari way juróom ren jii nag mu mu mel ni daf koo tudde sëñ Mourtala Dieng ibnu sëñ Balla Fally Dieng dara jaale ko sëti sëñ Balla Fally yëpp su ngeen gisee jataay bi rek dina xam ne ren kon am na leneen lu ci yees ndax li mu ko dara jaale euh, euh, sëti sëriñ Balla yi kon saf na ci sab euh, kii mooy sëñ sëñ Moustapha Bassirou moom sëñ Modou bu fi teewee rek teewaale naa fi waa Darou Dieng gépp ak Cheikh Abdou moom sëñ Abdou Fati Dieng ak Baye Mouj Jobbe Dieng suñu wayjur sëñ Fallou Dieng teewal ko fi Baye Modou buñ ko waxee mooy njabootu sëñ Ibra Ñande gépp teew na fi ndax xasida gu siiw googu ñuy wax wakaana xaqan te mu joxoon ko euh, ma maam Ibra Ñande yónni woon ko ko ci sëñ Balla digal ko fere mokkal ko kon sëñ Fallou Dieng moo fi teewal Baye Modou ñu ngi leen di siyaare baax di siyaare sëñ Saliou jëng ak euh, suñu wayjur yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di leen siyaare bu baax a baax di rafetlu jataay bu baax a baax ñu ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. auzu wa inni u'idhuha bika wa suriyataha min ash-shaytaani rajim rabbi a'udhu min hammasati shayatin wa a'udhu rabbi an yahdurun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw bu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci xayrul xalq sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di santat bu baax serigne Touba Cheikh ahmed Bamba Khadim Rasoul waye di sant ka ñaanal suñu yaakar serigne Balla fall Jeng ak njabotam di ci jital nak Cheikh Mutada, Murtada mi sering serigne Balla fall di ko ñaanam mu fi te ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen jéggalu ci kaddu yi ñuy yëkëti ci turu suñu kilifa di serigne Jeng mi ibnu Cheikh Abdul Karim Jeng Balla fall ñu koy ñaanam mu fi te waaye feggoog rakkam cheikh Moustapha al Basirou Dieng ibnu cheikh Mouhamadou Dieng moom sëriñ Balla Fally ak mbooleem kilifa yi teew ci jataay bi sëriñ Fallou Dieng a ngi nii ibnu cheikh Modou Diop Dieng sëriñ Abdou Ndaam Dieng ibnu cheikh Abdoulahi mu sëriñ Abdou Fati ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp sëriñ Saliou Bey moom Baye Khady sëriñ Xaadim Bey jëwriñ ak ñoom ñëpp mu mel ne Serigne saalu Dieng wax na ne mi ngi nuyu mbooleem njaboot gi di ko tàmbalee nag ci kilifaam gi nga xam ne ñoom buñ fi teewee it gannaaw yàlla ab jataayam a tax muy Cheikh Mouhamadou Mourtada ne xam nañ ne ba muy man daana teew fii di ànd ak Baye Khady jataay bi ci lu yàgg mboole njabootu sëñ Balla gi itam ñi ko fi jiitu woon daanañ teew fii ci bés bi dale ko ci sëñ Abdou Karim Dieng Balla Fally mi nga xam ne yàgg nañ fi ràññee ab teewaayam ci bi mu fi nekk ci sëñ Modou Dieng Balla Fall ku nekk daa nga fi teew Cheikh Mourtada mii leen fi wutu itam xam nañ ne ak ñàkk man xëy na moo tax teewul ci jëmmam waaye léppam teew na fi ndax njaboot gi teew nañ fi di siyaar itam seen kilifa di sëriñ maam Balla nga xam ne moom it fu teew teew na fa kon sëñ Saliou nee na mi ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal ci kàddu sëñ Mourtada waaye itam ci kàddoom ak njaboot gi di seeti sëñ Balla Fall yëpp wax na daal moom mi ngi sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem di ko beral nag bàyyi xaalis mi nga xam ne yàgg naa taxawee jataay bii ci lu yàgg yàgg niñ ko limee rek yàgg koo ànd kilifa yooyu ñu fi tudd ñuy kilifay kër gi kon nag suñ demee tey bis bi di dox di dox ba ji mu wax ne da ko dara jaale Cheikh Mouhamadou Mourtada Dieng tuddee ko ko muy sëriñam di xalifa sëñ Balla Faali waaye dara jaal ci sëti sëñ Balla Faali Dieng yëpp yu góor yi ak yu jigéen yi kon day mel ne itam dara jaale na ko taalibe sëñ Balla Faali Dieng yëpp ak xarit yi ak soppe yi kon ñëpp bokk bis bi kon sëriñ Saliou wax na ne mi ngi ñaanal Baye Xaadi bu baax ci turu sëñ Mourtada waaye turu njabootu sëriñ Balla Faali gépp ak taalibe yëpp di ko sant te xam su jëf doon doy mënoon naa wàcc bu yàgg ndax ci sëñ Abdou Dieng Balla Fall yi ba léegi mi ngi jëf kon mel na ne jëfal na xalifa yi sëñ Balla Fall yëpp jëf jooju itam yemalewu ko ci xalifa yi sëñ Balla Fall yi waaye da koo jëf ba àggale ko ci ñoom yi nga xam ne dañoo doon dereti sëñ Balla Fall di ay sëtam ku ci nekk rek bàyyi xaar jox na la wàccuwaay ba nga xam ne am nga ko ci sëñ Balla séq ak yow ay teraanga yu baax muy maslaa ak rafetal di jëmale ci ñoom kon nag loolee mel na ne xam nañ ko te yëg nañ ko te jàpp nañ ko kon daal xam naa ne li ci am solo dëgg-dëgg dëgg mooy ak cant moom du weesu ak cant te sëriñ bi moom sant na bu baax Baay Xaali di sant ak njabootam di ko jaare itam ci xaadim mi xam ne moo ne ci bopp bi di kilifa njaboot gi ak sëriñ Saalu Bey mi ak sëriñ Bilaat ñoom ak ñoom ñëpp ba ci sëñ Basiiru su ko defee nag li ci am solo dëgg-dëgg rek mooy kon ñu xam ne kër gi kër la goog dafa bokk ci ëtti sëñ Balla Fall yi ki sanc kër gi di bàyyi xaar yi itam ñëpp ràññee ko ci liggéeyu sëriñ Balla Fall bi mu yàgg cee jëf te su jëf doon doy ni mu ko waxee léegi kon nëgë wàcc na waaye nag yoonu murid daa mel ne loo gën a jëm mag di gën a am xemem teef ci liggéeyal sëñ tubaa ndax niñ koy misaale naan yàlla loo ko gën a xam di ko gën a bëgg te loo ko gën a bëgg di ko gën a loolu daa feeñ kon ci liggéeyub Serigne tubaa loo gën a jëm mag Serigne Touba gën di neex ci yow da ngay gën a bëgg a sëriñ Serigne Touba su boobaa nag ñi di ay ndaw te toll ca war a liggéey day mel ne Baye Khady wàcc na wàccul nag ci saahir waaye wàcc na bu yàgg ci ay jëf te tey la gën a mën a jëf ci lépp lu ñuy def ci kër sëñ bi moo xam luñ ñu la wala lu ñu yëgul la kon nag li ci am solo mooy ñoom ñii lool dañ loolu yi lañ doon seere ci Baye Khady ba tax ñu déplacé wu dagg seen yite ak seen temps yëpp ñëw fas yéene ànd moom bis bi won gone kat mag nga waaye mag mu am njariñ nga ci kër gi ndax say jëf yàgg na ci kër gi te ba tey yaa ngi wéy di jëf kon nag ñoom suñ déplacé woo ñëw la mu firndeel rek mooy kii ñu fekk si di bàyyi xaale xam nañ ne kilifa la goog mat na lam doon ndax ñoom ñi wóor na mën a seenu jot bariwut tey ñi leen di soxla bari nañ tax na nag kon Serigne Saliou woo ngi nii tey ànd ak rakam sëñ Moustapha Al Basir ak Cheikh Abdou mi ak sëñ Abdou sëñ Abibou ñoom ñëpp ñu bokk teew fi ngir àndale bàyyi xaali ci bis bi wan ko ne lii ngay def yéeg nañ ko te ñor nañu kenn ku fi teewoon it wóor nañu ne dana doy sëkk buñ fi yónnee woon it wóor na leen ne bàyyi xaali xolam dana sedd waaye xam nañ ne loola yég nañ bàyyi xaali lim leen defal tam rëy ci ñoom moo tax na kon fokk danañ déplacé yu ñëw ànd koog moom kon kàddu yooyu daal la sëriñ bi bëggoon a yëkkati jëmale ko ci Baye Xaadi ak njaboot gi lu ci dëngit ndongo li wax rek lañ xam ne doomu aadama matu rawatina koo xam ne la yàlla xam doyen waaye wóor nañu ne li mu ëmb ci ak cant aku yiw moom mii ak i rakkam ak njabootu sëñ Balla ku jigéen gi dale ko ci soxna May bintu seex Abdou Karim Dieng Balla Fally ak rakkam ak soxna Aminatu Dieng bintu Cheikh Mouhamadou Dieng Balla Fally ak i rakkam ba ca soxna Diop Dieng bintu Cheikh soxna Sila Dieng ñoom ak ñoom ñëpp di njaboot gi ñooñ bu leen tuddee rek tudd nañ bundu këri sëñ Balla yëpp ci jigéen ñi kon ñoom ñëpp maase nañu ànd ak sëñ Saliou ñoom ñeeg sëñ Moustapha ak maam Balla ñoom di sant Baye Khady te di ko ñaanal di lu bis bi te fas nag di ko ànd ak moom saa bu ne rek di ñaan yàlla na ko yàgg woote te yàggu ko fekke at yu bëree bëri nee na itam noonu lay sante njabootu Baye Khady gépp itam góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi di sant itam mbooleem taalibe sëñ Balla Fall yi nga xam ne nee na ñi ngi yëngu ci liggéey sëñ Balla Fall yi ak fu ci waay yëngoo ak noo ci yëngoo tey ñaan sëriñ bi nangul ñu liggéey bi te sàmmal ñu ko xusi bi sar fi lxasanaat li musinaat مريم فخت مقينات حين التي لم يدرك فزت في الحسنات سيدة لمحسنات مريم فخت مخينات حين الذي لم يدرك كن فيكون لك قد خير رسول للانتقاد وبكفاء تصدقات ولم يكن السلام عليكم ورحمة الله نونجي نيو بوكي في تيو يب di ziaré alaaji xaali bay bu baax a baax ci bis bi ca suba ba naga ni ñu ngi ci alquran mi ak muy sant sëriñam serigne Abdou Dieng yakarna tay ku ñew fi ci kër alaaji khali bey gi da nga xamne and ak nit ku bax rek mo am solo fexé ba laq ngeureumum te mom day ku na xam na ne laq na ngeureumul serigne Abdou Dieng Balla fali li ko waxoon nit it ne ko maa ci sa kanam mang ci sa ginnaw del ñaan lo bëgg lolu tawfiq la ci njabot gi yep mom day lu mu dogu serigne Abdou Dieng fekk ko ci ab sëriñ ab ab talibé dé bu dogo ci serignam gisul la mu na xolat bopam mom nak lu mu dogu ci sëñ Abdou jang rek sëñ Abdou jang fekk na ci ku ne xamné ne bisub tay bi ku fi ñew ak ni jamono xaté li jamono di xat xat xat xat feñul ci bis bi ci nit ñi way yi fu ñuy def ñu dekk ak fep nit ñi juggé nañ fu ne gis nañ fi ñu juggé fu nek ci ay dëkk yu fasanti ko ñew ci bésu alaaji khalib bi muy sante serigne Abdou jang Balla fali nuy ser bax jëwrin serigne khadim serigne khadim bey serigne khadim bey mi mooy ni liggey bi ñu and ak mom ñun njabotuk alaaji khalib beey gi lu nek lu lu gis lu bax rek mu ne li nañ ko def ci bis bi ñu and ko mom muy ku bax nak ku modeste ko xamne ne nit ku am yermande la nit ku rafetu xol la te li may wax yalla rek tax makoy wax muy jëm ju bax di jëm ju yiw ah, soxna ndey be dégg nañu sa wax bu baax bax ci soxna si ñew tay di nuyu ci gorom di soxna Mati Lay soxna Mati Lay yi nga xam ne dañ koo duppee woy juru sëñ Sidil Mokhtar euh, muy tur wu tedd woo xam ne tubaarkàlla macha allah seen xaadim jëf ji soxna Mati Lay miy def nuyu see ko sa jur wii ak sa woy juru jigéen yi muy ay gorom jëf ji reyna ci alaaji xaali lool mboolem fami bi yépp sant nañ ci bu baax ndokk nak bi ko defee ci bis bi ndax da melni bis bi mom li olof di wax rek naan kuy jaay laalo da ngay dem fan téré limom mom dana baax ci mbeyeen yi waye ki tax nga jëf ko it ku reey la ci nun muy alaaji xaali njabotam gi di soxna Ndogoy Njaay soxna mbenn soxna Astu ba ci soxna nday Njaay ak seeni dom ñom ñëpp begg nañ ci jëf ji kon yàlla na yalla barkeel sëy bi def ci njabootug lislaam mbooleem bokki xaadim yëpp ay doomi baayam yëpp bëgg nañ ay bàjjanam soxna Mati Seen a ngi nii ñëpp bëgg nañ sunu xol sedd na lool ci jëf ji nuy ñaan sunu borom jubóole la ak moom soxna mbeet mi nga fi fekk moom itam noo ngi koy sant bu baax nag ndax soxna soo xam ne jàmbaar la boo ñëwee nanga fas yéene ànd ak moom liggéey bii nga xam ne da koy liggéeyal sëñ Xaadim Bey mel ne seytaan aj bi bismillahi rahmaani rahim laa awla wala quwwata illa la sim barke Cheikh Sall barke Cheikh Sall barke Cheikh Sall barke Cheikh Abdou Dieng bismillahi rahmaani rahim mbokk yi teew maa maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne tur ci turam ba noppi man xamal ne leen

yàlla man nga xam ne bii lu jub lu ne ko jubal lu dëng lu ne ko dëngal yàlla bu saytaane amu yoon sa diggante ak sa borom kër ab dundam yàlla na ne ni danaa fi am lu mel ni borom kër gi wala lu ko gën waaye la ko koy may nag dafay fekk yaar yaar ya muy fekk ca kër ga mooy naqar ak bànneex lu mu ci jël bàyyil fa doomu la ca des nga xam ne ab say neexut soo jigéen ji salaamaaleykum na nga xam ne kii yow mi ne salaamaaleykum yaa di yaa des ndaw waaye ki nga ne mooy salaamaaleykum mooy mooy mooy mooy far wi ndax boo ko santee la nga bëgg dana ko def bu ko mënee bu ko mënul dana ko jéem su dee loo koy laaj su ko amee jox la ko moomu waaye boo demee ba maanaam wàcce leen ko ci néeg nga wàcce toog na nga xam ne yaay jabar ji mooy jëkkër ji ndax naa la teg loo loo nangu ak loo mënu soo ko nangoo def ko am tuyaaba soo ko gàntoo ñàkk tuyaaba ndax jigéen ku ko yor ko sant tere ko bu la santee nga def am tuyaaba soo la santee nga gàntu ñàkk tuyaaba kon na nga xam ne bu boobaa nag yaay doon jabar ji di dab ay bànneexam te ginnaaw ki la ki la jur mënalatu la dara gàddulatu la dara ki la booleel moo yor sa àjjana tey sa ak sa àjjana ëllëg boo ko jaamu doo ko am nun ñii di ay góor topp sunu moroomi góor muy ahlu Mbàkke ak ñett topp ci ñoom yaakaar leen ëllëg doo nga tax waaye bu doon fii ci àdduna duñ leen topp waaye nag dañ leen a yaakaar ëllëg defe na ëllëg lanu fa amul danañ ko mën a amal ndax ñoonu gën a jubee seen borom su ko defee nag yow itam na nga fexe ba góorgóorlu ànd ak kii bu la diggalee nga def bu la tere nga baax yoon wi mooy loolu yow itam xaadim jigéen ku ko yor danga ko yërëm di ko dimbali ndax sëriñ Tuubaa nee na kat jigéen dafa am yéen sikk yéen sikki jigéen mooy dañ lay tooñ ba noppi jëkk laa mer di lekk sa alal te duñ la fay loolu nag eh, neexut kon nag na nga góor góorlu xaadim góor góorlu ngeen ànd ci àndu gor yàlla man na ko yàlla na ko def eh, yàlla bu saytaane am yoon seen diggante yàlla na yàlla def njabootu lislaam seen diggante te ñu fekke ko kenn ku ci ne jekk ba am lu la noppal ci seen diggante yàlla mën na ko yàlla na ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ومن قبل ومن كل يوم قبله وبعده ببركات <clears throat> من ولد فيه ونفع من قبله ومن معه فسبي سر في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فوخت مخينا حين الاسي لم يدرك كن فياكم